28 000 parrainages lañ déposé Pape Djibril Fall 8 000 parrainages la indi kii di MPR 18 000 parrainages. waaw man man man man man man man man man man man man man man man man man man man mooy dañoo gëmoon ni suñu boolee suñu doole ñun danañ mën a déglu waaw. waaw déglu déglu maa. ah non boobu ñu la wax waxoon naa leen ko de wax wax wax mais grawul lii la lii la dese On a déjà parlé. Waaw, waaw, je me bats pour la ville de Diourbel. Waaw, je me bats pas au niveau national. Je nage pas dans l'erreur, je nage pas dans les situations mensongères. Pape Djibril Fall est dans une coalition nébuleuse. Amsadou Sow Sidibé a dit la vérité parce que nous avons subi la même situation. Moi, je suis un cadre de l'administration, je me suis engagé dans la politique. Je vais pas faire défaut. Je vais pas nager sur l'erreur. Je vais battre campagne à Diourbel. S'il vous plaît, voyez bien. C'est bon, c'est bon.

fi mu war a toog confortablement moo tax mu mer waaye euh, amul benn njuuj njaaj bu am ci parrainage yi. nee na nee na Pape Diouf loolu moom man mu mujj andi mu mujj andi tontu loolu mu mujj andi tontu li am solo moom mooy euh, ñun parrainage yi ñu jógoon Diourbel ci biir trois quarts yi mën naa ko indi. bi ñu ñëwee moom àndoon na ci mu dem ci suñu mouvement euh, mouvement taxawu yëkkat yi. ma nekk tëdd liste bi mu ne Cheikh Diagne loolu loolu lañ préparé woon lii waaw li loolu loolu moom après moom dina dina ko wax mais am solo moom moo am solo mooy wax na 28 mille la man maa yoon parrainage yi parrainage yi trois quarts yi maa ko parrainé te loolu euh, mën nañu indi mën nañu indi preuve man maa jëlee trois vingt neuf mille parrainage jëlee Diourbel euh, huit mille et quelques parrainages jëlee Fatick mille quatre cent parrainages jëlee Louga mille et nangam parrainages li mu mi ngi ci kayit yi xam na xam nañ ko. voilà lool nag loolu en tant que xam ne inspecteur des impôts domaine la di borom xam-xam di kilifa wër te ñakk toog rek tax mu ñëw fii pour ñëw pour wax France yi pour yàq loo xam ne ñun liggéey nañ ko ñun li nekk lu leer nekk nekkuñu ci loo xam ne lu lëndëm la ñun ay ay kilifa lañu ay responsable ay donga daara lañu ay boromi xam-xam lañu polémique yi ñàkk a toog nag wax dëgg yàlla wóor a tax nga ñëw boo ngeen déglu discours bi suñ ko dégloo lépp lu war am ci cër ñu ngi nañ ko ma jëlee kàddu wax naa euh, fi ma jóge ak ñi ma àndal ba egsi naa ne loolu mooy loolu mooy mooy mooy question bi am solo mooy ñëpp ñu wax waaye man ñu maa ngi sant waa Diourbel di sant mouvement Diourbel dama bi nga xam ne wóolu nañu ànd ak ñoom di sant yëpp ñi nga xam ne pare nañu di sant sama yi jàpp naa loolu ci bi mu war am def nañ ko amaa jëmmi nag nit ku nekk nag li si dina ci boppam bu ko neexee génn woo journaliste ne may wax sama sama xalaat waaye jàpp naa ne li tax moom moo war a wax mooy dafa wax ne dama ñëw installé wuñ ma loolu la war a wax su boobaa ñu xam ne loolu moom normal waaye bu ñëwee ne dañoo trafiqué ay ay pénance loolu amul te maa ngi koy maa maa ngi défier mun andi benn preuve ne loolu amul maa ngi sant ñëpp nga xam ne question bu laaj laaj dañu topp waañ ci yoon wala non non duñ ko yóbbu ci yoon amuñu boobu jot ñoom ñu amuñu temps boobu li ñu am moom mooy li ñu andi Sénégalais yi mooy ay njariñ ñu indi Sénégal loo xam ne ñoo xam ne ay liggéeykat lañu ñu ay liggéey ñëw andi leen góorgóorlu ba andi euh, ba toll fii duñ bàyyi koo xam ne dafa vraiment day ñëw xamuñ lan lan ci ban intention la am ndax it vraiment fekkee ne ñun ñoo ànd ñëw war nañu consulter ñu waxtaan ci ma xam yéen di solidaire mais bu jékki-jékki yéen di def yi jàpp naa ne moom la engagé ñun nag ñun ñu tax a jóg mooy fulla ak fayda ak posté ak lépp question bu ñu laaj ñu tontu yaakaar naa ne moom laaj leen ko ñaata parrainage na joxe bu ko waxee moom su waxee woon ci la andi dañ ci ëpp ci ëpp ci coono yi ñoo ko def kon nag li am solo moom mooy bu ñu àndee moom loolu loo xam moom moom mu pare woon ànd ak ñun si dem ci bannière mouvement taxawu liggéeykat yi bu ñu xoolee suñu caution caution bi mouvement taxawu liggéeykat yi moom moo man man dé man maa ko kese man maa bese caution bi li am moom mooy bu ñu àndee ñu ànd ak nawle nit ki nag su amee lu mer war na ñëw toog fi fi ñu ko wax waxtaanee woon moom moo waxtaan wax ne kat man bi ma ñëwee en tant que allié war nañ ma installé loolu normal na loolu man man nee na installé leen ko ñu ngi toog di wax mu dem ñu ko daf di ko woo ñëwul kon war na wax ne li tax ma mer mooy dañ ma installé wul waaye waxi parnas yooyu moom jàpp naa ne su ko waxee jub te loolu xel nanguwu ko te yaakaar naa loolu yàq la te ñu moom mooy li ñu andi muy pas-pas bi Pastef bi ak njub bu leer naññ man maa génne sama fukki million juróomu versé ko mouvement taxawu liggéeykat yi man maa andi trois quarts ci parrainage bi ñu jël tax mu nangoo nekk sama ginnaaw kon bu ñëwee fii ñu ànd jógee Diourbel bu ñëwee fii war naa fu amee lu ko naqari ci ñàkk installation mu wax ne kat loolu te loolu jaaduwul nee naa leen installé leen ko a toog waaye ñàkk jël installation ak ñàkk jël kàddu bu tax mu bëgg a yàq loo xam ne dëgg la lii am njub la bu leer laaj loolu moom maa ngi ko te pare naa pour ngeen laaj ma question bu ngeen bëgg laaj ma ci tontu wa salaamu aleykum wa rahmatulah. léegi euh, précision de taille